kër Gaston nga Gaston não moom mooy wàcc noonu Gaston não, mooy wàcc noonu Thank you. Rivera Gasong Mengongo. Rivera Gasong Mengongo. Give me!

day bañ lool. Ah, buur géwël maa ngi yore ah mais kan la ah? eh, Don King. Ah, ñu koy xalal yoon bi. waaw mu ngi noonu ñu koy xalal yoon bi. maa ngi de ma

feijão com enganado. Vai casar. Eu não digo que sim. Small. That's the only one we got out of it.